bu parce que histoire mu la bind Bambilor parce que gouvernement bi dafa projet redécouper commune Bambilor fa fait dëkk wala de ñaar ba ñetti ko Bambilor ko 2013 ba fi mu demande def pétition laaj nguur bi mu ériger euh, créer une commune de plein exercice à kunun ak keur Ndiaye ak yi ko mais ministre bi malheureusement ci bi la affaire collectivité territoriale sa recevoir pour waxtaan ak bi or dama jàpp président bu amé réforme bu am solo bu day Sans ko gouvernement pour ñu xol incohérence territoriale ak incongruité territoriale yi am pour ñu li am am moy pencho pencho bi nak fu tambalé moy ci chef de village yi ci imam yi donc imam yi ak chef de village yi ñi nga xamné ñom jël initiative bobu jël initiative pour dajalé dëkk yooyu parce que ñëpp ay mbokk lañu ci ciossane ci tarikh ci walu koom ci walu mbokk ñom ñoo mësa nek nekk ñoo mus dëkk seeni i tool légui dendoon tool yi nañ fa légui nek nañ ay way mu nek benn dëkk ñu jël initiative bind ministre bi ne ko ñun kat suñu bëgg-bëgg askan mooy ñu defal ñu commune parce que dañu jàpp ne mënuñu jóge fii ñu boole ñu ci commune Bambilor te balaa ñu egg Bambilor il faut ñu traverser commune Sangalkam yëpp loolu nag dañoo bëgg ñu jooyanti ko mais ministre boobu ñetti ministre yi ko jiitu muy Cheikh Bamba Dièye muy Omar Youm muy euh, kan ñoom ñetti ministres yooyu yëpp recevoir nañu mais moom mi nga xam ne mooy doomu gox bi te lépp lu mu am kunun ak Kër Ndiaye moo ko may nanguwul recevoir euh, loolu njàkk jox cër boobu nag moo gën a tax askan bi braqué wu ñuy xamal président que lii ñu nar ni askan bi ànduñu ci tey ànduñu ci suba ànduñu ci ëllëg te du juróomi dëkkeer ñoo ci àndul bambiloor yëpp àndu ci ak li raw bambiloor